di ko dóor rond-point Sandaga xam nga li may wax. rangu. Euh, sama jabar dafa nekk ci ligne bi di seddaan. waa léegi sa jabar bu nekkee ci ligne bi yow. yow xam nga yàgg naa am ay gel yooyu dóor rond dëgg la wala dëgg. rangu xam nga nga war a wax. Hmm. rangu dama bëgg. dafa benn xale bu jigéen bu nekk ci dëkk bi. dégg naa hmm. gisuma ko nag <laughs> dama ko hmm. ku tudd Lili xooma. waa yow rangu loo xam ci Lili. Lili mooy kan. ah benn gel dégg naa bu ne ci Instagram di lëmbal. lëmbal. ah. benn gel la de photo wan ma ko. bu dee dëgg la yàlla bëgg rek yoruma photo. lii di mooy borom ah. Ah. damay laajte rek. Euh, rang. non man damay laajte. Rang am benn temps xam waa ah. Jamra woo na waa mais lii nii ñuy wax xam nga dara newu ci danga maa laaj man damay laajte ba xam xale bi jël photoom ne ŋàpp ne ŋuuj ne ŋalaj kooku dëkk dëkk amul jàmm ma nag ah, ok koo amul léegi rang yow loo xam ci kooku parce que yow sénégalais yëpp fu mu ne nii yow lañ xel ndax dañoo ah. gis yëngal gi nga daan yëngal waaw fan yi yëngalatoo lii lay yëngal amet yaa ngi ah, may tooj wan ma ko wan ma ko ajal ajal ajal photo bi aj ko ma xool mais lu tax ko pour que nga xam ne daal man li ma gis mooy bun gu doy dong lañuy ñuy jaay te fii ñëpp ko yor naa. waaw. lili li muy jaay yëpp ay parole Rango nga ne. mais lim ñuy jaay mooy fondé fondé fii ñëpp ko yor. waaw fii Rango may na leen fi soirée privée bu ne mu. waaw. ah lili dafay mën a lalatu lu ñu sax. mais mais Rango. naa ñu ne bëri na fant de. nga ni. li li bëri na fan su lool. waaw man mii yow sama fan yaa ngi yëngu nii de rurale foo ne wéroo ko man nag ci xale bu ñu xale dérange bi man mii ñu war a wóolu ma def association bokk. Euh, Rang gis nga pour commencer ah, bu fekkee mën nga wax yow ci lii. ci lii man jot naa léegi message boo xam ne bi ma yeewoo laa gis Instagram bi kii statut yi nit ñi naan lili lili lili. lili de nee naa lili. nee nañ ko am na xale bu garaaw bu nekk Sénégal. loolu da nga wax ko ñu lay seetaan ñu mën a am lili man xaw billaay laa nga xaw ma. yaa ma wax ay waxama ah, boo ma. indilee rek man wuyu ma wuyu Maodo man boo ma indilee di nga ma yóbbu ndax man damaa neex a yóbbu. si li laaj rek laa lay tontu. waaw. moom yàlla dafa dogal ne man gis naa li muy jaay. lili aana gu rëy lay jaay. waa ñoom li ñuy dundee la ñoom li ñuy dundee xam nga Dudas loolu dafa am doole seen xeeti dàmp bokk ak suñuy dàmp Dudas waaye li muy jaay am na daju bu rëy ngi fépp man noonu laa ko gis yaa booy booy xoola si noonu la ñaawee na comme man ko kii wéli ah yow la yow eh, eh, eh, ba xool yow kii bokkut ak kii ma waroon de xolo xolo xolo xolo eh eh eh eh moo eh oh oh oh yàlla xam na ni damaa bëgg xale bu sadik lii gën a bëgg bëgguma xale bii bëgg naa quoi kii vulgaire naa mais mais raam gel bi lii baaxul na ah gel lii da baaxul gel bi ñoo baaxoo mais naa ma ne li muy def nag li gel bi def baaxul parce que boo xoolee gel bi dégg naa du sénégalaise ba pare sénégalais yee ko bëgg sénégalais yi xam nga ñoom dañu leen a indi rang xale bi di def ay deux pièces di wane ay poojam di dund lu mu fekkee ñu ne non ñoom duñu ko nangu waa Lili ban dëkk la nekk te ñoo ngi def seen i abonnement di yàq seen connexion di ko seetaan lii. mais yow xam nga yow yow li def nii daan nga ko def. eh man li Lili def daawoon naa ko def ak mosuma koo def ak tey laa ko gën a def xam nga fii lan la gis nga gis nga vie bii di yàlla daf ñu fi wàccee pour ñuy dund lu ñu fekkee ah. man noonu laa gisee li mii li ko saf lay def rango yi itam day felfelaale li ko neex rek lay dund. mais yow rango da ngaa bàyyi ndox du bàyyi yoonam bàyyi li ngay wax ni kon fan fay. mais ngay wax yow ma maa toj nii de nii nii damaa ñab jabal temps bi rek xaw a dugg yaa ma gën a xam nii mais foofoo ngay xar ba zéro. sa ko rek rango comme tontu woo sama question dama ne xam fan yi xew. ci li nit ñi wax te lili benn benn nigérienne la yaa dégg yow sénégalaise la jot nga fee def ay lëmbal ak yooyu noonu mais problème bi mooy de lili yow rangu waa xana di gisuñu lili yow xanaa da ngaa bëgg maam Matar wóolu ma maam Matar bi si lili moom bis bu ci duggee dootu ko defati lii leer la bu yëgoon a ñam ci rangu rek de kaawu lili moom ku ko lijjanti moom xaw ma lili la tudd xaw ma lu tudd loolu beneen kaa la. léegi yow yow yaa bàyyi ni kon. yow eh nee naa la ndox du bàyyi yoonam bàyyi li ngay wax bàyyi wax fi def bay bàyyi fii fi ñëw dañ koy macc doom. Eh, léegi yow rang kon fan rang fan ci rang nga nekk. fan yii damaa si. Eh, mais rang yaa ngi lii commandé am na ñoo xam ne da ragal ne da ngaa ragal gaa yi wax da ngaa ragal. non non non eh xoolal naa ragal li li mu def nii bu ma ko defee waxuma waxuma la Matar waaye délégation waa ñooy def délégation dem ci lii doon loolu ma ko def de moo defuma loolu leneen laay def leneen lu gën a pire loolu mais du def loolu waaw. non loolu dañ koy denc mm-hmm. pour fans ñi may béggee yaa amee mais du daas na mën naa la nag sama xarit bi sama doomu nday nga waxal sa gel bi ne ko yàgg ngaa am ay gel yooyu doo rompoy Sandaga ba di ko diri wax ko maa ngi nii toog joom mi nga foog ne corona bi tamit duñ ci tenta tuma maa ngi ñuul aw may wii loo wax yaa ngi may dégg